dem nañ ñu wax suñu course yi ñu ñu rectifier def ki erreur yi ñoo xamanteni ki affaire positive ñu maintien ko ñu liggéey tactiquement mentalement techniquement lepp lañ liggéey ñu xam ni Pikine fii pour am fii pour am fii victoire day jafe ñu ñëw ñu ne tactiquement physiquement dañu war a taxaw ñu course yi li liggéey loolu boo ñuy kii ñu ñëw fii tey ñu joué suñu match bi tranquillement match bi du métti na moom métti na mais alhamdulilah am nañu 3 points foofu léegi match bi da nga koy fàtte ñu préparé suñu semaine prochaine match bu nekk suñu kanam.